أحببت رب العالمين مع العالمين ولا

boole ñaase bamba fil jinaani assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen waa daaira xidmatul xadim bu Kébémer sëriñ bi mu leen yi nuyu di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal ci seen taxawaay bu rafet bii nga xam ne moom ngeen taxawe mu bokk ci jaayante gi nga xam ne dangeen ngeen moom ngir jëmmi Cheikh Mouhamadul Amin Baara ba tax ngeen dagg seen yitte yëpp ñëw ci bis bu màgg bu tëdd bii di bis bi nga xam ne ci lañuy ñuy fàttali ko Amin Baara te muy loo xam ne xéewal la ci beneen yàlla booleeg Cheikh Mouhamadul Amin Baara waaye xéewal la itam ci bu leen yàlla booleeg sëtam boo xam ne mësta ci benn yoon ay bëgg-bëggam fa maamam xooloon fa maamam awoon rek. foofu la yow muy sëriñ Mame mii kon mu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci seen taxawaay di leen fàttali rekk li nga xam ne moom moo waral bis bii nii ak njariñ yi nga xam ne moom la bis bii làmboo ak taxawaay bi nga xam ne moom la ci taalibe yépp war a taxawaaye waaye nag rawatina yéen ñii ndax kat dëkk ba ngeen jóge di Kébémer day dëkk boo xam ne Cheikh Mouhamadul Amin Baara da koo fonkoon lool mën nañoo wax ne it da koo beraloon loxo ndax maa ngi tiim benn xasiida boo xam ne sëñ Baara ko bind te ci waa Kébémer képp la ci doon ñaanal mën naa cee wax benn bëy rek bi mu naan ikfil wabaa ya rabbana an Kébémer wa doon xool dëkk yi nga xam ne sëriñ Baara tudd na ko ci ay ay dëkkam bind tudd na ko ci ay xasidaam mën nañoo wax ne mën naa bañ a bari te teewul fu nekk la daan dem waaye waa Kébémer am nañu tawféex Cheikh Mouhamadul Amine Baara bind ci ñoom te lam bind ci ñoom mu nekk fii ñëpp mën cee jot bis bi nag bis la boo xam ne Cheikh Mouhamadul Amine Baara lañ ciy fàttaliku ak ganib jamonoom ndax ku ne xam ne ne Serigne Touba ay xéewal kese la te ñetti njariñ lañu fi bàyyi loon muy xasidaam yi ak jumaam ji ak doomam yi. bi nga xamee ne Cheikh Mouhamadul Amine Baara gane na jamono atum 1891 tombé woon ak ñaar ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weer wii ñu nekk bim ganee jamono Serigne Touba dafa dajale mag ñëpp mag ñi nga xam ne ñoo njëkk a jaayanteeg moom ne leen na xam ne mboolem li ngeen soxla woon gan gii di ñëw di Mouhamadul Amine indil na leen ko. bis booba ca la wàccee maam Cheikh Ibrahima Fall Serigne loo Ndamlo Cheikh Ibrahima Sarr Diagne. ak mat yu bëree bëree bëri bëri bi nga xam ne nag yàlla dogal na Cheikh Mouhamadul Amin Baara nekk ci àdduna liggéey fi liggéey bu rëy bi mu fiy liggéey ba yàlla dogal mu wuyu ji boromam en 1936 ci la taawam Cheikh Mouhamadul Hafiz di Serigne Modou Baara commencé ko màggal moom màggal gii di màggalu Mbàkke Kajoor mu ngi ko commencé woon 1937 waaye booba tey siir la ko daan defee te it bis bi nga xam ne moom la nelaw moom la daan màggal. màggal ko 1937 ba 1952 mu wuyu ji boromam Serigne Abdoul Aziz mi nga xam ne mooy maami Serigne bii ñëw 1952 ba 1990 di ko màggal moom moo jëlee màggal ga tey siir yóbbu indi ko fii ci Mbàkke Kajoor waaye moom it bis bi nga xam ne ci la Serigne Bara noppaloo moom la daan màggal bi fi Serigne Cheikh Sidi Mokhtar ñëwee ci la ko Serigne Saalihu digalee ne ko nañ tuxal bis bi yóbbu ko ci bis bi nga xam ne moom la ganee woon jamono ndax bis boobu kat dafa. làmboo woon ay njëriñ yoo xam ne mag ña toppoon Sëñ Tuubaa ñëpp lañ bëggoon ca lañ ko am kon nañ waat bis boobu ndax ñi nga xam ne fii kiiwuñ jamono jooju mën cee mën a jëriñu moo waral ñu indi màggal gi ci ñaar fukki juróom-ñetti ci weer wii ñu nekk kon bis la boo xam ne ci la Cheikh Mouhamadou Amine Bara gane woon jamono kon nag euh, taxawaay bi nga xam ne moom lañ ci war a am sëriñ bi nee na mu ngi digal képp koo xam ne teew nga ci bërëb bii nii te yàlla dogal nga fer ijji nee na li ko gënal ci bis bi mooy na ñëpp dem ca mbaar ma ku mën a jàng alquranul yi mu jàng ko ku mën a jàng xasiida mu jàng ko ku mën a tudd yàlla mu tudd yàlla képp koo xamee nag yàlla dogal na mënoo loolu nga dem ca waañ wa jàpp ci liggéey bi waaye moom day koo xam ne yàlla bindewu ko muy tooge loxo yi neen wala muy toog toog kese te du def dara te bëggul ko ànd ak moom topp ci ginnaawam topp te doo def dara kon nag bis bi occasion la boo xam ne mënees na cee liggéeyal suñu borom liggéey ci sëriñ liggéeyal ci sëriñ Baara loo xam ne ma dinañ si am lu kawee njortu muy àdduna ak muy alaaxira te sëriñ Baara nag képp ku ko xam ak képp ko xam lu ko yàlla may lépp lu taq ci moom danga ko fonk rawatina loo xam ne du ko nduru di dund ak dundam ndax moom kat am na lu ko sëriñ Touba waxoon sëriñ Touba da ko bindaloon benn leetar moom sëriñ Baara la gën a yéeme ci leetar bi da ko cee wax ay mayam wax ko ci njabootam ni ñuy mel ba noppi ne ko leetar bii binduma ko suñ borom moko bind li malay wax ni du samay wax ci suñ borom subhanahu wa taala la jige ne ko faalam bi annaka ya muhammad al amin satanalu maqaman yagbituka fihi jami'u amsalik wa anna kull man kana maaka la yarawna illa ma yasurruhum wa yanfa'uhum fi dunya wal akhirah wa hum yadkhuluna al jannata bighayri hisab wa la tashkuk fi kawni hadha min allahi wa rasulihi ilayka wa minni loolu Serigne Touba bind Serigne Bara ne ko xamal ne yow Muhammadul Amin di nga am ay maqaama yoo xam ne sa moroom yëpp yeneen la ci ñee te it na nga xam ne képp ko ànd ak yow du gis lu dul lu koy bégloo àdduna du gis lu dul lu koy bégloo ak lu koy jariñ àllaaxira te ñi ànd ak yow ñëpp dinañ dugg àjjana te kenn du leen xisaab bi ma maanaa kenn du xool ba xam lan nga daan def wala daan nga def lu baax wala déet bu fekkee Serigne Bara nga àndaloon te muy lu wóor Serigne Touba nee na ñooñu bu ëllëgee yomal xiyam danañ dugg àjjana te suñ borom du leen xisaab. ne nag lii ma la wax bul ci am denn loo ci sikki sàkka ndax mu ngi jigee ci suñu borom subhanahu wa taala jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw ci man jëm ci yéen kon nag ndigal làngoog yéen ñi nga xam ne yéen a takku ngir fas yéenee ànd ak euh, Cheikh Mouhamadul Amine Baara ci bisam bii ngeen xam ne daal lii bëgg sëñ Maam Baara mooy bëggub sëriñ Baara li doonoon bëggub sëriñ Baara mooy bëggub sëriñ Touba te sëriñ Touba dafa waxoon ne nit su fekkee bëgg naa mucc àdduna ak alaaxira na boole juróom-ñeent yii ba muy wax loolu sëñ Mbàkke bu la ko doon wax sëñ Mbàkke Bousso laaj ko ne ko juróom-ñeent yi yan ak yan la mu ne ko mooy dangay ngay ragal yàlla ragal ku ragal yàlla ragal ku ragalul yàlla bàyyi lu bon bàyyi ku bon bàyyi fu bon lu mu xamul bu mu ko wax lu mu mënul bu mu ko def lu mu moomul mu màndu kon nañu takk ci juróom-ñeent yooyu nga xam ne moom la Serigne Touba digle woon te Cheikh Mouhamadul Amine Baara daan doxee noonu te Serigne Maam Baara mi fas yéenee aw ci tànk yooyu. te fas yéene koo wàcc benn yoon kon nañ laxasuwaat bu baax a baax a baax jaayanteewaat bu baax a baax. maam Bara mbir man damay wax ne képp ku di jullit wala nga dib taaliba wala nga nar a am sens nii ko yàlla defal dalay neex ndax bu la neexul damay gis ne da nga am coono fii am ko fa njëm te billaahi doo ko mën a yàqal dara ndax moom daa jaar ci yoon wi nga xam ne ci la yàlla jaarlu jaar ci yoon bi nga xam ne ci la rasulullahi jaarlu jaar ci yoon bi xam ne ci la Xaadimu Rasuul jaarlu jaar ci yoon bi xam ne ay maamam ak baayam ji lañ nekkoon sunu borom moo wax ne ci alxuraan inna lasina yatluuna kitaaballah ba'da auzu billahi mina shaytaani bismillahi rahmaani rahim inna lasina yatluuna kitaaballah wa aqaamu salaat wa anfiqu mimma razaqnaahum sirran wa alaaniya yarjuuna tijaara lan tabura yàlla ne na képp ku jàng sama téere bi di alxuraan julli waxtu yu juróom di dimbalee ci li li yàlla wërsëgal ngir jubli ca ab commerce ca man yàlla doo perte kon yow Mame Bara doo perte sunu borom waxaat ne kuntum xayru ummatin uxrijat linnaas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah Mame Bara ci loolu la nekk ngën ci xeet xeet bi nga xam ne moo gën ci xeet bi sunu borom nee na mooy ñi jàng alxuraan ba xam ko wàññi ko di ko jàngale ba noppi di digle lu baax di tere lu bon ci loolu la maam nekk kon maam Bara ñu ngi lay ñaan yàlla subhanahu wa taala sa fii nga toll yàlla na ak tàmbali ci yow te yàlla na nga jeexal ci sa mbégte ci sunu mbégte yàlla na nga jeexal ci sa bànneex ci suñu bànneex yàlla na nga egg foo xam ne ñëpp dañu ne maam Bara dafa naa toog sa fi ndax yow kët man de képp ku ma jur wala ku ma xam dama lay wax na la bu la kenn jiitu ci maam ndax nit la koo xam ne rayuwaay la nit la koo xam ne fa mu jëme nit ñi mooy yoon bu baax wan yoon la mooy jàngal leen yar leen yarub diine tërbiyee leen xamal leen dëgg di wax ñoom dëgg di def dëgg ñu koy gis nit nag su fekkente ne da ngaa nekk ci moom mu nekk ci dëgg di wax dëgg di jëf dëgg di def dëgg nga di ko dégg koo kooko wàccoon ak yow yow waneen yoon woo jaar yaa sa jaar sa bopp waaye moom jaarale wu la kon daal xam na ma gàttal wax bi xamal na maam Bara sama xol ci yow daal li ne sama xol bii mun ma ko génne sama gémmiñ waaye yal na la yàlla sàmm yal na la yàlla dimbali wan xada zikruhu lamin likalkali wa jasadi